Nous avons ci chantier yu euh, bu jëk nit ñi dañ daan wax né langue yeeg alphabétisation euh, amulone volonté politique légui nak volonté politique bi dafa ñëw avec l'engagement l'implication euh, du premier citoyen de ce pays c'est-à-dire son excellence monsieur le président de la république Macky Sall que nous ko amé ba paré ñu ministre bo xamné mom dafa engagé pour la promotion des langues nationales muy Momadou Talla donc tay euh, li ñu fi dajalé journée internationale de la langue maternelle bi nga xamné euh gannaaw suba 21 tombé dimanche euh, ci lañ ko wara euh, célébrer ñun nak ñu anticiper touti commencé à ak ay atelier atelier yo xamné dafa da fay toppatoo document bi nga xamné depuis 2010 commencé à nañ ko muy document de politique linguistique national bi nga xam national ñepp ko bok ñu commencé ko def na ñetti fan Thiès di ci waxtaan di ko xolaat parce que depuis 2010 xam nga ne amna yuñ ci wara changer waat ak war ko defar te war nañ gëna impliquer ñepp donc document bobu draft lay doon pour tout le monde euh biñu paré ñetti fan yoy tay ministre de l'éducation nationale def point de presse hamne, tengke teunk na presque lepp lo xam chantier la ak ak ñu am li nga li ma ci gën a insister nag mooy ñaar yi nga xam ne bu ñu ko amee rek presque mun nañ wax ne problème yëpp euh, kii na euh, réglé nañ ko euh, mooy document de politique linguistique bi nga xam ne démarré nañ ko mais aussi modèle harmonisé d' enseignement bilingue bi nga xam ne ministre daf ci taxaw pour ñu xam naka la ñuy dugale langue nationale ci école yi mm-hmm. mais commencé ci tout tànk yi tey bi may wax ak yéen nii ci préscolaire bi nga xam tuut tànk ñoo fi nekk foofu boo fa demee langue nationale yi mu nga fa ñu ngi ci élémentaire bi bu ñu paree ci élémentaire bi dem moyen secondaire mu nga université moom déjà document yooyu dafa nekk euh, démarche boo xam ne dañ ko def impliqué ñëpp ñëpp ñëpp parce que booy def loo xam ne sociale la culture la ñëpp a ko bokk da ngay associer ñëpp loolu li ko téye woon la mais fi mu nekk nii associé nañ ñëpp ministre taxaw ci ba nga xam ne professionnels yi spécialistes yi nga xam ne ñu ngi université ñoom tey gis nga taxaw nañ ba ñu ngi def ci ñu ngi ci recherche yi ñu ngi ci euh, données yi nga xam ne à la base lañ koy am pour mun a wax ne euh, zone bi école bi langue bi lañ fay mun a def loolu dañ ci ànd ak sax parents d'élèves yi parce que nag euh, xale yi. dañu am ay parents yu leen jur di leen andi école bés bu nekk ñooñu dañu nekk ci li ñuy wax comité de gestion de l'école ñun dañu am ay à la base des comités de gestion de l'école nga am képp ku yore groupement euh, mu ngi ci biir parents d'élèves yi ñu ngi ci biir école beeg ñëpp ñu ngi ci biir foofu la ñuy waxtaane ba xam ne tey dinañ wax ne parents yi dinañ wax ne suñu école bii kat lii lañ ci war a dugal pour suñu doom yi donc c'est une démarche inclusive et participative avec tous les acteurs avec les scientifiques mais les documents, surtout surtout de politique linguistique après ils koy partager parce que nek ne national euh, institution yi euh, assemblée nationale je valider conseil économique social environnemental au conseil des collectivités territoriales bi nga nous ne ñoo porté éducation ak formation mais aussi patronat le privé parce que privé nous euh, avons nekk ci qui xamné presque yoré ay ay euh, nit yo xamné ñu ngi leen di ñu nekk fa mais en général da ngay gis ñu nekk ay ñoo xamné euh jànguñu ko yooyu ñoo dafa am nak article 22 de la constitution alinéa 4 bu ne entreprise bu nekk da nga war a dugal sa loxo jàpp ci pour former d'abord ñi nekk ak yow mais aussi jàppale état pour ñu former nit ñi encadrer leen loolu article boobu aussi document bi mu ngi fi ñu ngi koy waaj a xam naa d'ici quelques semaines ñu dugg ci euh, euh, MOHEPS bi euh, wax naa ko parents d'élèves yi ñu ngi ci mais aussi institution li ma la cité yëpp dañ koy xool ba xam ndax lii buñ ko defee dootuñ dellu siwaat encore si ay problèmes moo tax de manière intelligente lañ koy def boole ci ñëpp ba nga xam ne buñ ko defee Sénégal day jàll si leneen ci développement parce que base bi base politique linguistique bi mooy développement xam nga xale bu ndaw nga dugal ko école mu nekkoon ci kër ga di làkk par exemple wolof wolof rek la xam nga andi ko tey ne ko di ko jàngal benn làkk boo xam ne bu bees la génne lépp lu mu comprendre noonu ci bëgg ci dugal loolu day xaw a jafe mais bu buñ dugalee langue national day sax yokku doole français bi parce que kii yëpp alphabet yi benn la presque différence yi bëriwul donc xale bi bu commencé euh, par sa langue maternelle après ñu dugal français bi dangay xool dafay gën a euh, euh, xam-xamam maîtriser li nga xam ne moom lañ koy jàngal surtout les matières scientifiques yi nga xam ne ñëpp xam nañ ne fi mu nekk ni loolu la ñuy toppatoo chantier yi moom euh, vaste na mais comme am nañ inclusion bi de manière participative démarche bi alhamdulilah ñëpp saluer nañ ko gis ngeen léegi si léegi loolu lañ wax euh, niveau universitaire bi te du université de Dakar rek du UCAD UGP université de Ziguinchor ñëpp daal ñun daal bàyyiwuñu kenn ministre nee na li président wax ne bu ñu bàyyi kenn gannaaw bàyyiwuñu kenn gannaaw li ñuy def nag ñu ngi ciy woo ñëpp ku dégg ñëwal bul sa xaar budé yang ci bude si langue yi bu dee wax société bi mo la ñor ñëwal ñu àndandoo liggéey li nga xamné buñ ko amé ko fay permettre suñu dëkk bi euh, développer parce que capital humain bi ñu bëgg fi rek lañ ko mëna amé